Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah nak mom moy mooy maam Cheikh ibrahim Fall moy gëné aduna ci atum 1855 mo ngi génn aduna ci atum 1930 Mom nak kenn la ci mouride yi andon ak serigne bu tedd bobu di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul and nañ dir bu yàgg bi nga xamé ne and nañ itam mom nekkoon na kenn ko xamné itam fësal na lool ci ñi andon ak mom ci ak dëggal ak góorgóorlu ak fonk serigne bi ndax bi nga xamee ne sunu borom dogal na sëriñ bi dem fa nga xam ne mooy Gabon moom nekkoon na kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon jaxasoog tubaab yi di def effort yu bari ngir tubaab yi mën a bàyyi sëriñ bi mu ñibbisiwaat ci réew mi ba tax na ginnaaw dogalub sunu borom tabaraka ak sëriñ bi ndam yi ko sunu borom may ba mu réussir ak tubaab yi jéego yooyu taalibeem boobu doon dox moom maam Cheikh Ibrahima Fall jéego yooyu mu doon dox bokk na ci li tax tubaab yi andiwaat sëriñ bi mu ñibbisiwaat ci réew mi. wax nañ ni itam bi sëñ bi ñibbisee ba ñu yóbbu ko fa nga xam ne mooy gànnaar mu def fa diir bu yàgg lu tolloog juróomi at wala ñeenti at. moom taalibeem boobu di maam Cheikh Ibrahima Fall doxaat na ay jéego yu nu mel ci waxtaan ak tubaab yi ak négocier ak ñoom ak di jàppalanteeg ñenn ci ñoom ba sunu borom dogalaat sëriñ bi ñibbisiwaat mu ànd ak coobare sunu boroom ak ndogalam. moom nekkoon ku jàmbaare woon ku dëggoon te dëggal koo xam ne itam ku sëriñ bi gërëmoon la wax nañ ne itam lu bari ci wor ma ak lii ñuy woowe ak taalibe lu ci bari ci moom la feeñee muy jëmm joo xam ne kenn la ci mag yi incha jëmmi jamaano xëy na dinañ leen ñëwal ci histoire ba mu jeex tàkk li nag nekkoon seen programme mu mag ñi ñu ànd ko génn ci weeru safar bi di 18 safar ñuy ñaan màggalu jàmm ñu fekkee ko ak jàmm sëriñ bi nangul ñu